damay yuuxu léegi nag su ndox bi ñëwul ma yuuxu ah, ah, léegi damay dem ci Saliou indil leen ko ndox balaa balaa balaa Aliou di yuuxu ci plateau bi du ma ko atte te mu yuuxu Ousmane Sonko day reetaan te Ousmane warul reer <laughs> Cheikh euh, si yow laay euh, ñëw Cheikh euh, sa sa sa sa sa sa centimètre bi moom koy jëlal mesure centimètre bi waaw waaw ba écoute dama kontaan nag j'étais très abahi mhm. par rapport ak discours grand bi xam nga grand bi moom boo bokkee moom plateau en général day ko njëkk a wax quoi ndax bu waxee ba pare <laughs> <laughs> am loo wax <laughs> waaw maître bi nag parfois dama koy gàccoo ni waaw mooy sama identité ce qui me démarque de cay sama tailleur ci ci ci ci ci ci plateau bi souvent di wax parce que réew mi daa bari wax wax ji bari lool nit ñi di wax te ñi ci wax wax yi nit bariwul mm-hmm. li ko waral nag euh, ñu bari ci ñiy wax te waruñoo wax c'est parce que wax ji day fay mooy seen wa lamiñ la ñuy woddoo mm-hmm. te bari na ci ñenn ñi nga xam ni dañuy am fu ñuy bëgg te doo fa bëgg boo toogee di wax lu am njariñ dañuy jàpp ni yow da nga bokk ci ñi woddoo seen lamiñ mm-hmm. léegi su ma gàccoo maître bi loolu ñoom sama diggante ñooñu loolu dafay daal di jeex dañuy xam ne man li may woddoo ci waaw loolu benn la bi ci des maître bi da am lu muy symboliser ci àdduna maître bi benn riba la boo xam ne ay chifre lañ ci def yu bëree bëri mais chiffres yi yëpp ci diggante benn ak ñaar la nekk muy un ak zéro mm-hmm. diggante ak zéro dafa nekk boo xam ni il y a tout ce qu'il y avait il actuellement et il y a tout ce mooy li ñuy woowee mathématique àdduna mhm. bi ñëpp ñu réussir ci seenu dund mu ñog ñu ñogal seeni réew dañoo taal seenu xel mën a dugg ci bibliothèque boobu xool lépp lu fay jariñ doomu adama ca lañ ko jaarale ba lépp lu ñu utiliser fa la jógee donc loolu moom moo waral may gàccoo maître bi war yi jël Sénégal nag def ko ni lal ko ci kaw taabal daggate ko natt ko ñaw ko def ko taybaas bu rafet ak jip jox la ko nga sol ko loolu la réew mi ah, donc su ma ñëw ci ci fi ñu tàmbalee ci hmm. kaw débat bi hmm. euh, dama bëgg a préciser ni maa ngi jiite mu parti bu ñuy wax ma réew 3 de mais candidat la ci élection législative yi ci coalition bu ñuy wax Sénégal kese Sénégal kese ci ak Thierno Alassane Sall bi mu cité hmm. ak Abdoul Mbaye ak yeneen doomu aadama yu mel ni ah, yaa ngi ci liste boobu waaw maa ngi ci liste boobu mhm. ñu koy woowee la coalition des vertueux mhm. muy ay nit ñu am jom bu fekkee ici il y aura li am solo mooy même boo duggul assemblée nationale sax nga bokk ci plateforme boo xam ni di nga ñoom ay valeur bokk ñoom bëgg-bëgg nga xam ni koo ci teg loxo bu duggee moom da xam ni yow participer nga dugg kii ci biir assemblée nationale bi mm-hmm. kon lépp lu mu fa mën di def rek day bokk ci loo xam ni eh, participer nga ci su ma ñëwee ci débat bi mm-hmm. man jàpp naa ni euh, ki nga wax ni moo demandé débat euh, première ministre bi mm-hmm. pour man c'est un échec échec la ci dëkk bu mel ne Sénégal de 1960 à 2024 mu am ñu mu produire defal leen lépp ba may leen xel ba ñu am capacité wu liggéey yow nga bokk ci nga xam ne li nga xam lépp ci biir réew mi nga ko xamee dëgg la euh, à cause de la conjoncture économique nit ñi nekk ci benn jaxasoo ak jaxle ak l'explosion de la technologie nga jaar en dessous de leur vulnérabilité brandir le flambeau de l'espoir nit ñi daw topp la nga nga promet benn changement nga promet benn changement changement boo xam ne mënoo ko indi parce que li nga bëgg a ci réew mi yow lépp ci réew nga ko jàngee mm-hmm. réew mi jox la lépp bu yàlla dogalee yow nga tekk ci loolu ci ñi tabax réew mi ñooñu nga ni woon nag foofu li fi nekk dara baaxu ci ci ñooñu nga bëgg a jël kenn bi nga demee ba réew mi nga bëgg a wëlbatikuwaat jëlaat kenn ci ñoom mm-hmm. ni wax nu kaay ñu débattre man ak yow pour wane yow niveau bi nga bëgg a brandir mooy échec la mm-hmm. mooy mooy recule la pour moom évoluer wul parce que il devait viser vers le futur mm-hmm. moom normalement bu fekkee li mu jot yor réew mi ci juróom-ñaari weer nekkoon na lu jaaxal sénégalais yi ak lu méngoog lim ñu diggoon kon ci ñi nga xam ne ñoo ko fi bëgg a wuutu ni kaay leen ñu débat man a yéen man waxuma la grand bi mais man ak ñeenti ñi gën a jiite nguurug Sénégal bu ñu toogoon ma bokk ak ñoom débat mën naa pendant une de temps kenn ci ñoom du wax parce que li ñu xam bariwul mhm. li ñu xam bariwul te jamono dafa toll foo xam ne lii jële réew mi fii war ko yóbbu feneen mhm. malheureusement du lu ñuy jàng ci entre quatre murs du lu ñuy jàng ci tableau du lu ñuy jàng ci livre et du mhm. information bu ñuy intercepté ci télé mhm. te bu doon information boobu information du dugg ci réew mi ndax réew mii dañuy filtrer information yi fii dugg parce que on est mhm. dans un pays trop tabou kon ñoom ñoo xam lu bees lu mën a defar réew mi donc loolu laa xam ni euh, échec la euh, Amadou Ba tamit nekk doomu aadama boo xam ni du gàjji du saaga du xuloo moo tax Ousmane Sonko bëgg ñu orienté ñun bëgg a manipuler peuple bi comme il a l'habitude de le fair mhm. pour jox ñu jëmi jëmi Amadou Ba pour peut-être imposer ñu ko comme leader de l'opposition ou, la personne qui doit être crédible ou qui doit être écoutée moo tax mu visé ko le fait que mu demandé débat bi c'est une orientation du loo xam ne da ko def rek pour jàkkaarloog moom parce que Sonko mhm. mënut a wax ñaari baat ci àddunaam mhm. débat bi dama bëgg a laaj ci ban langue lañ koy def bu dee ci wolof. Ousmane Sonko Barthélémy nañ ko def ci tubaab. non bu ñu ko defee ci tubaab moom il est exclu. et ah. bu ko defee ci wolof Ousmane Sonko déggu wolof un de deux dafa dotom. ba pare débat da ngay wax di reetaan te Ousmane Sonko moom bu toogee fas kanam gi mën nga ko respecté mooy bu reetaanee rek nga génn ci moom. ndax la waaw xamul sax ni ñuy reetaanee. donc c' est c' est extrêmement dafa gàtt ah, comme xam dafa nekk yoo xam ni. bu ñu dañ ko war a taxaw euh, euh, saytu. Mhm. donc man pour man débat bi amut amut amut amut. amul njariñ et ñun tamit waruñu ko nangu. Mhm. parce que Sénégal du Côte d'Ivoire. mënuñu vingt cinq dernières années yi politique gu Côte d'Ivoire bëgg a ci Gbagbo ak Ouattara. Mhm. Sénégal politique bi warut a yem ci Macky Sall ak Amadou Ba ak Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko ci vingt dernières vingt années yi vingt années yi di ñëw. y a mhm. d'autres yoo xam ne ils une alternative. am na yeneen Sénégalais yoo xam ne bëgg nañoo wax lu bees. comme ni ma la ko waxee de 1960 à sept mois plus tard c'est des populistes menteurs manipulateurs ñoom ñoo fi nekk ci nguur gi mm-hmm. sénégalais yi découvrir nañ ko rideau boobu dañu bëgg mu jàll ñu am beneen air air boobu il faut des sénégalais yoo xam ne dañuy am capacité wax bees li jamono di togg tey tey ñu koy man di nal ci seenum xel mm-hmm. man ko teg ci réew mi pour jële réew mi mm-hmm. fii jëm ko yóbbu feneen sénégalais mën a adhéré ci yooyu discours man maa leen di invité débat ah débat te nag du ma leen invité yow man ñëpp laa bëgg a débattre ci réew mi képp koo xam ne rek pare nga pour débat contradictoire xam nga débat ñetti phase la ñetti phase la mhm. dafa am débat de surface mhm. mooy li gën a bari ci réew mi moom la ñuy wooyee débat de caniveau mhm. am débat de fondeur débat de mirgent mooy débat bi nga xam ne nit ñi li ëpp ñi ñemewu ñeme nañu waaye du ñu xuus fa ñuy waxtaane man débat de profondeur laa leen di invité lépp li nga xam ne ay sensibilité la ay sujet yu tabu la ba tax suñu réew mi demul ñu man ko waxtaane grand bi am na lu am solo lu mu réew mi man j'ai la malchance chance ma wër Afrique. Mhm. ci histoire Afrique. Mhm. musuma gis réew mu am programme bu man a développé am réew ba weesu assise nationale yi ñu bind. Mhm. amatul ci adduna amul lenn loo xam ni mu ngi nekk problème ci réew mi te assise yi réglé wu ko. mais pourquoi le peuple ne suit pas pourquoi mise en œuvre bi nekk lu jafe. c'est là où euh, blocage bi nga xam ni mooy bloqué Sénégal foofu la nekk est-ce que les acteurs politiques ont le courage de aborder ces sujets jàpp naa ni ñemewuñu ko xalaatuñu ko sax. voilà parce que j'ai l'habitude de dire Sénégal day dund benn day dund benn fatalité du destin mhm. boo xam ne li ko waral mooy euh, Sénégal perd beaucoup d'énergie il se gonfle trop la poitrine pour être le représentant d'une idéologie venant du péninsule arabique chez le bédouin mhm. le Sénégal perd trop d'énergie dans ce sens au mhm. moment où les autres pays en train de se gonfler la poitrine pour le développement pour sortir de la matrice vous voyez ce que je veux dire idéologie boobu Sénégal di jéem a défendre dafa créer ay plateformes ci biir mi yoo souvent dama leen di wooye des temples de l'ignorance des laboratoires de lavage de cerveau et des cabinets d'hypnose c'est-à-dire un système de zombificatif dans ce pays mhm. ce qui fait que la moitié de notre population elle est zombifiée donc si la moitié de la population est inapte tu dans une aptocratie Et ce qui fait que la population ne pourra pas injecter le sens de leur existence pour le développement de leur nation. Mhm. et interprétation ñun bi ñuy jéem glorifier pour nekk représentant bi dafa jox ay représentativité yenn considération ci biir réew mi. Mhm. ñu am légitimé wu jël askan bi def leen ay doof te réew moo xam ne li ëpp ci aw askanam nekkuñu ay nit réew moomu naataange mënu fa am. Mhm. lii nag mooy débat bi nga xam ne gars yi ci mënuñ ko ko sax moo a débattre ci réew mi. mooy li may dafa bëgg a dem mais dafa am benn ëkk bu ko téye ëkk mhm. mais ëkk gi dafa am ay reen yoo xam ne dañoo implanté wu ci suuf te pour nga dindi ëkk gi Sénégal dem il faut nga jël si nga dagg reen yi pour ëkk yi dañ mhm. reen yooyu nag boo ci dagg di nga déclenché traumatisme benn group bu sénégalais mhm. te sénégalais bu nekk li yàq réew mi yow am na ci part de responsabilité xam ni yaa ngi ci considération xam ni am na lu ci nekk di yàq réew ma da bëgg ñu wax ñu ñeneen ñi mais yow sa bos doo ñu wax doo ñu laal ko xam nga comprendre li may bien sûr moo tax man ni suñu politique yëpp dañuy fooy ñoom ñëpp li ñuy def mooy nekk fii di crêper les chignons kenn ku ci ne bëgg dajale askan bi ñu teel la échelle pour nga jaar ci yeeg pour nguuru donc loolu loolu loolu laa gis moo tax ma xam ne débat bi pour man amul sens quoi mhm. Ousmane Sonko su nekkoontoon ni gëm boppam en 6 mois réussir na li mu promettre woon Sénégalais du delluwaat ginnaaw xool ci li mu brouillé woon naan leen kaay leen ma débattre ak yéen mhm. donc loolu c'est un échec total. di mel ne dellu ginnaaw euh, léegi nag euh, ñi nga xamante ne moom mooy euh, li xew ñëpp gis nañ ko le fait que moom am na détail yoo xam ne.